alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér yàlla na ko ñëpp wax ci seen làmmiñ yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal ndawam yi teew fi mu yebal leen fi ci jotaay bii nga xam ni li ñu fi dajale yiw rekk la ci ndigalu suñu kilifa sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke xalifa maam sëñ Ibra Mbàkke Ndar feggoog mbokku daaru salaamam yépp ñuy nuyu ñépp di leen jaajëfal tey lu seen taxawaay ci ubbite jumaa gi nga xam ni moom lañuy def tey jii ñu koy sante yàlla nag bu baax a baax te di si ñaanal suñu mag suñu xalifa sëñ Maamun Mbàkke yàlla na ko yàlla yërëm te taas ñu ci barkeem te rafet ci moom njort lool sëriñ di nee na mi ngi sant képp ko xam ni ñëw nga fi tey bokk tey mbokki taalibe tey dëkkandoo ñi ngi sant ñépp di leen gërëm tey ji nag li li fu indi lépp mbaaxu sëñ Moodu Maamun Mbàkke la ndax béréb bi ñu nekk tey jii fii di kër sëñ gaawaan gi nga xam ni alaaji Sam moo ko tàmbali woon bés tey jii kër gi mel nii mu wëlbatikuwaat jumaa ji ñu fi rëddaloon sëñ gaawaan moom it mu yeggalewaat liggéey bu rëy bii nga xam ni mooy jumaa ji def ko nag ci taalibe def ko ci bëgg maamam maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam bëgg ko lool ci xolam jël alalam jël taawam jël jël fitam jël ngorom jël wërsëgam yépp mu jeel dooleem fii ba yàlla def mu jiitu mënul fekke sax maanaam ubbite jumaa gi looloo neex yàlla looloo neex yàlla waaye Mbàkke gàcce maalaama jeexal nga sa doole fa nga war a jeexale muy gaawaan gaawaanu maam Cheikh Anta ñëw nga fekk sa kër maam defaraat ko ñëw nga fekk sa jumaa maam defaraat ko jàpp ñëpp bëgg ñëpp yërëm ñëpp am ci ñëpp cofeel waaye ñëpp wëlbati ko naat fayaat la lépp loo xam ne defoon nga ko fii sëriñ Sidi nag dafa wax ni liggéey bii nga xam ni sëñ Mamoun yéene la ci amoon bëgg a liggéeyal maamam nee na jumaa ji ak kër gi képp koo xam ni yaa fi toogal borom gaawaan yaa yilif kër gi képp koo xam ni yaa fi yilif njabootu maam Cheikh Anta boroom Daaru Salaam boo toogee nañu yëkkatiwaat caabi yi jox la ko nañu joxaat jumaa ji ne liggéey bii boroom gaawaan moo ko moom ñun ñi nga xam ne nag ñoo bokkoon ak sëñ Mamoun lépp loo xam ne entretien la te mu jëm ci jumaa ji jëm ci biir kër gi incha allahu rek dinañ ci jeexal suñu doole yeggale yéene sëñ Modou Mamoun Mbacke mi nga xam ni moo bëggoon maamam wane ko jëfe ko ñëw ba ci dëkkam defal ko teraanga ju mel nii yàlla na ko maamam fay waaw lii rek ci gàttal mu nekkoon wax yi ñuy sant Cheikh Anta di sant sëñ Fall Lappé di sant doomi sëñ Muntaxa gi nga xam ne tey ji moo ñu jiite fii ci jumaa ji sëñ seex yàlla yàlla fay la e, ak mboolem mbokk yi fi teew ku liim rek di nga ñu ngi ànd ak sëñ Saaliw sëñ Siidi sëñ Ibataal ak njabootu alaaji Saam yëpp sëñ Daam gis nañ ko fi Mamor Touba Touré ngi fi ñëpp a ngi fi kenn mbokk yi kenn wuutewul liggéey bi li ngeen di ñaan rek mooy ngeen ñaanal sëñ Maamun sëñ Maamun nag amul payu sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa tabaxu taxawu na ko fépp won na ko boppam fépp ba tey jii nga xam ni liggéey bu rëy bii mu liggéeyal yàlla mu yónnee fi taxawu ko won ne ko bàyyiwu ko benn yoon sëñ Sidi nee na mi ngi ko ciy sant bu baax a baax a baax a baax te di sàkku ñaan te di nga ñaan sëñ bi mu teg loxo mu teg loxo njabootu sëñ Modou Mamoun gii na ñaanal njabootu sëñ Modou Mamoun gii ba yàlla bu ñu am benn ndokk yàlla bu ñu am benn ndokk yàlla bu ñu am benn ndokk sëñ Sidi mi mu fi bàyyi yàlla na yeggale ak sagoom yàlla na ko yàlla jox wërsëg bu mu bu mu liggéey ba yeggalee liggéeyu baayam bii allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim taslima